صراط المستقيم أبلنا هدى به يبتنا من أبلنا يا صراط المستقيم من أبلنا هدى به يبتنا من أبلنا maaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Touba Argentine ak li ko wër yéen a ngi jàkkaarlook seen télévision Touba Argentine TV ñi ngeen gis ñu taxaw ni ñooy njabootu ko Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké mi nga xam ne mooy taawu Serigne Touba taawu yoon wi ba taawu jafe comme ni ñu leen koy waxee saa ne tey nag ñu taxawoon fii tey ngir fas yenee wax seen yëg-yëg ak seen yéene ci màggal gi nga xam ne taxawal nañ ko fii ci Touba Argentine muy màggalu ko Serigne Modou Moustapha Mbacké gi nga xamante ne nii moom la Serigne bi jëlee woon Cheikhul Khadim yaakaari jaam ñi tey ak foofee fa njaareem yóbbu ko ca Touba ñu fas yéene ko màggal fépp fu waay mën a nekk ci àdduna bi njabootug Serigne Touba di njabootug sëriñ Modou Moustapha Mbacké taxaw fii tey ci Touba Argentine fii nga xam ne fi lañ mën a màggalee muy hôtel Bawane ñi ngeen gis ñu jàkkaar mooy njabootug Serigne Modou Moustapha Mbacké bu ñu ci tuddee kenn rek daanaka doy na sëkk muy ki nga xamante ne ni moom mooy suñu jëwrin di suñu mag kon du ñu def lu dul rek jox ko kàddu yi mu dal di waxtaan ak mbooloo mi ana lan la yëkk ci bés bi tey ak it ñoom nan lañ taxawalee bés bi ba yegg si fii tey ñu ngi lay ziar jëwrin Pape Soda ausubillahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaan rahim asbuna laa wa ni'mal wakiilu alhamdulilahi rabbil alamin sëñ Assane ñu ngi lay ziar birool si bis bu tedd bi bis bi doon ko bisu mbégte bisub xéewal du bisub indépendance murid yi ndax sëñ Modou Moustapha doonul waajur doonul waajuram dafa doon waajuram xam am na ñoo xam ne dañuy doonu seen waajur moom nag dafa doon waajuram ndax ku tedd ki di xaadimu rasul waajuram moom dafa doon Maamoor Anta Sali bi fi Maamoor Anta Sali jógee dafa uuf ay rakkam uuf njabootu Maamoor Anta Sali gépp ba ni mu fi jógee noonu la sëñ Modou Moustapha noonu la def uuf njabootu Serigne Touba gépp ak ay rakkam ba tax lii la bëggoon maanaam ku tu Serigne la njabootu Serigne Touba gépp gépp gépp sëñ Modou Moustapha moo leen joxe ñu jàng ñii mu sampal leen daara ñii mu jàng leen xam-xam ñii mu jàngal leen liggéey sëñ Modou Moustapha lii la bëggoon bi mu fi jógee bàyyi fi Gaynde Fatma muy Cheikh Cheikh Cheikh Gaynde Fatma sëñ Cheikh Mbacke moom it moo jëkk taxawal daayira daaru xuddoos moo fa jëkk a taxawal daayira xuddoos kon yàlla nañ ko si yàlla fayal tataab ci barkeem bi mu fi jógee sëñ Mbacke na ñëw doon ñaareelu xalifam moom it lii la bëggoon daaru xuddoos doon kër Modou Moustapha doon benn bunt benn bunt boobu fii si Argentine kon tey gii sëñ mu safaa defal nañu ko ndax gis ngeen njabootu sëñ Modou Moustapha gii toog kër sëñ Modou Moustapha a ngi fi kër sëñ Mbacke Madina kër euh, sëñ Cheikh Mbacke njabootu sëriñ Mbacke Madina gépp gépp ñoo ànd ni taxaw tey def màggal gi dankaloo benn bis kon lii maa ngi ñaan si barkeb sëñ xale yi wax dëgg yàlla man sant naa ndax ñun ñi mag fii si dëkk bi dañoo noppal ndax lii ñuy def ñun lañ waroon ba dañoo toog loolu lépp lu ñu war a lu ñu waroon def ñoom ñoo koy def kon maa ngi ñaan si barkeb sëñ Modou Moustapha nii ñu ko taxawee nga yokk ba yokku si barkeb sëñ Modou Moustapha te damaa xam ne fi ñu nekk muy sëñ Modou Moustapha ba yëf yi dëgëree nga xam ne sëñ Modou Fall ah, tubaab yi ñoo ne woon sa réew ma di 1927 la sëñ Touba làqu ba 1945 sëñ Modou Moustapha dafa am benn bis mu tawat Gaynde Fatma dem wuti ab docteur ñëw bi ko docteur bu xoolee docteur dafa dafa ñàkk nelaw loolu dong moo ko jàpp bi ko Gaynde Fatma ñëwee wax ko sëñ Modou Moustapha sëñ sa laa wax na dëgg de ba sama am làqoo ba léegi gëmmu bët sama bët bi gëmul gëmul ba ca gëmul kon nag da ngeen di xool jooju jàmmaar 27 ba 45 nit ki nekk si àdduna ak liggéey bu yenu bi métti woon fondement jumaa ji andi raay bi euh, euh, Touba taxaw ay rakam dimbali leen taxaw taaliba yi taxaw ay waajur yi nga xam ne ñoo ko féetoon si waajur yëpp xoolal musul gëmmu bët bëccëg musul gëmmu guddi kon ñi ay taaliba daal xool sëñ Moustapha soññ nañu maa ngi soñ sama bopp di leen soññ ñu nekk benn te doole doole yar si dëkk bi dëkk bi yéen waa Daaru Xudoos sama bopp laa koy commencé mën nañ doole yar bi gën a joxante worma ngir yàlla ak ak jëmi Sëriñ Tuubaa bu soobee yàlla yar amee jàmm am nañ doole yar bi rek te yéenante jàmm loolu bu ñu ko defee jàmm dañ am jërëjëf sëñ Assane damaa bég tey ba aw ma lu ma wax ndax màggal gi tey ji mosu fee am maa ngi ñaan si barkab sëñ Modou Moustapha daal lii yàlla jëm kanam rek te yëpp ba yokk barkab sëñ Tuubaa jërëjëf jërëjëf jëwrin Pape Sora ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati nga ko ci kanamu mbooloo mi di jëwrin ci Serigne Mbacke Madina bu ñu tuddee Serigne Mbacke Madina nag mooy tudd nañ li nga xam ne moom mooy Daaru Xuddoos kon du ñu def lu dul jox suñu jëwrin eh, Serigne Baara eh, kàddu yi mu waxtaan ak mbooloo mi ana nan lañ taxawale màggal gi ak diiru bi ñu ko taxawalee ba yegg si fii ana moom lan la yëg ci màggal gi jëwrin kon kàddu yaa ngoog asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokki taalibe yi mbokki diwaan bi ñoo ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax di leen wax dëgg yàlla di leen jaajëfal bu baax a baax ndax li nga xamante ne bii maanaam jox nan ma ko ci biir liggéey bi muy wàllu organisation day wax dëgg yàlla ñi nga xamante ne bii ñoo ma ko jox lépp loo xamante ne bii wareef la ci te ñu war koo def yaakaar naa ne ñoom ñoo ma cay jiitu amu ci benn bunt boo xamante ne bii daal am naa ci lenn loo xamante ne bii sonal na ma. waaw waaye nag maanaam ki ñuy liggéeyal moo mel noonu maanaam nit ku nekk rek sa njaboot ngay am man daal kàdduy mbégte laa am ak xol bu sedd ci bokki taalibe yi nga xam ne ñoom la ñu seqal liggéey bi wax dëgg yàlla ñëpp bàyyi seen te jóge ci gox yu fasantikoo ñëw fii ngir mag jëmmal bés bi rek te yàlla yonent bi ak Sëñ Tuubaa rek tax waaw ndax màggal gi xëy na ñun daaru xudóos dañ ñu ko moomale waaye nag màggal gi ku ne xam na maanaam sababu màggal gi màggal gi moom màggalug Serigne tubaa la te yaakaar naa ne Serigne tubaa moom mooy yaakaari jaam yi tey ak ëllëg amut lenn loo xam ne soxla nañ ko fenn wala ñu yaakaar ko fenn wala ñu bëgg ko fenn fu dut ci seexul xaddim ba ba tax na it maanaam ñi nga xam ne ñoom la ñu liggéey bi am nañ ci yéene taxaw ci taxawaay boo xamante ne bii am na ñoo xamante ne bii ba ñu xëyee daanaka li ñu soloon barki démb ba léegi moom moo nekk seen yaram lépp rek ci bëgg bés bi ak yéene koo defar ba mu jàgg moo ko waral man dey wax dëgg yàlla bu may maa ci gën a manqué coono xëy na nag maay jëwriñu organisation bi waaye day maa ci gën a néewab coono maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp tawféexi sëriñ bi yàlla nañ suñu borom boole boole taxaw te it lii suñu borom jëmale ko kanam mu sax te lépp loo xam ne yéene nañ ko ci lu baax rek suñu borom jàppandal ñu ko te dox suñu digganteeg lépp lu ñu mën a yàqal barki seexul xaddim jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Ah, jërëjëf Serigne Bara ci kàddu yooyu nga xam ne yëkkati nga ko ci kanamu mbooloo mi kon du ñu def lu dul jox Serigne moodu ñu gën koo xam ci Modou Xasida moom mu feeñal yéeneem li nga xam ne moom mooy eh, ci bés bi ahousu billahi sami alim min sharri seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki taalibe ñoo ngi leen di ziare bu baax te leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. E di jiital ci nuyoo bi rek di ñaanal Serigne Sidil Mokhtar suñu borom yàggal ko fi te di ko ñaanal Serigne Cheikh Jëmb faalit mboolem naal yi ñu naal ci seen liggéeyu maam bi suñu borom aaru leen kàttanal ko bañ amee ko niñ ko bëgg. E di sant suñu borom bu baax a baax ndax bës bii nga xamante ne nii e bés bu rëy la ci yoonu murit ndax mën nañu wax ne mooy bés bi gën a màgg ci yoonu murit ndax li waral loolu. Serigne Touba moo waxoon suñu borom nag ma may bés bi gën ci samay bës te buy mooy te mooy bës bi may dajeeg yow waxoon Serigne Modou Moustapha su ma fi jógee nag ma yóbbu Touba Serigne Modou Moustapha àgg si ca dal ga ak maanaam mat ga nga xamante ni bàyyeel nañ ko ko gannaaw ba fi ku baax ki laax ko jël ko yóbbu ko Touba ànd ak ña nga xamante ni mooy lim ba nga xam ne moom la Serigne Touba waxoon ne ñoo ñoy fekk denc boobu noonu yóbbu ko Touba taxawal ko dëkkam bee di jël njabootam gi amu ci kenn koo xamante ni. Eh, wax nga ne ni nga xam ne noonu la ko Serigne Modou Moustapha yare bokk na ak ñi nga xam noonu la Serigne Serigne bi Touba yareel boppam kenn amewu ci eh, eh, am différence loolu muy jëf ju am solo taxawal ko yam jii nag jumaa ji nag bu ñu tuddee raay bi ndax it liggéeyu raay bi maanaam moo nekkoon jumaa ji ndax it li nga xamante ni moom lañ waxoon ne moom lañuy amal bu fekkoon ne raay bi amut jumaa ji du mën a am Serigne Modou Moustapha ca mat ga ak ca dal ga ak ca Pastef ba laxasaay ga ak ñi nga xamee ni ñoom la bokkal Serigne Touba ñëpp ànd ak ñoom ba liggéey liggéeyu raay bi ba nga xamee ni nag liggéeyu raay bi mën na mu jël li nga xam ne mooy jumaa ji te bu amu doon liggéeyub Serigne Touba bi yëpp dana nax saay kon ku loolee eh, buñ taxawee fii nii. ci Touba Argentine di amal li nga xamante ni mooy bés bi nga xamante ni moom la Serigne Touba waxoon ne mooy bés bi nga xamante ni moo ko gënal ci ay bésam yëpp ñu taxawe fii di ko eh, màggal di ko taxawee ci na nga xamante ni noonu la ko borom santaane woon mboolem alxuraan yi nga xamante ni moom la fi borom digle woon ci ñaar fukk ak juróom-ñett wax nañ ne dem nañ ba mat romb na lool ci xasida yi it dem na ba romb noonu ci salaatu ala nabi sikkar yeeg yooyu noonu yëpp li nga xamee ni noonu la ko borom digale woon yëpp li nga xamee ni mooy fédération bi amale nañ ko nanga nga xamee ni noonu la ko borom sàkko woon kon nag loolu duñ def lu mooy sant suñu borom ba nga xamee ni réew mii ñu nekk pas-pas bi nga xamee ni wala dal gi nga xam wala yar bi nga xamee ni danañ ko fi sàkk ba lépp loo xamee ni bëggal nañ ko fa ci suñu diine wala ci suñu yoon wii ni ñu amee ko niñ ko bëgg kon nag wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax a baax a baax Serigne Dame Cissé mi nga xam ne maanaam moo jiite mbooloo mii ni ak mboolem ñi nga xam ne maanaam ñoo topp ci gannaaw ak mboolem membre yi nga xam ne bokk nañ ci liggéey bii ni te di ci jëf-jëf yoo xamante ne nii kenn ku ci nekk la nga tax nga di ko def Serigne tubaa doo nga ko jëfal ndax kenn ku ci nekk gis nañ pas-pas bi nga xam ne membre yi nga xam ni nekk nañ ci biir mbooloo mi jëf ko te mooy jëf yëpp jëf yu am solo kenn ku ci nekk génne saw ñaq génne sa doole bàyyi sa temps bépp ñëw def li nga xamante ni noonu la ko borom santaane kon loolu it wax dëgg yàlla mboolem ñi nga xam ne ñoo bokk ci mbooloom yëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di ziare it ñi nga xam ñooy waa Touba TV Argentine ñu ngi leen di jaafal bu baax ndax mboolem eh, Eh, màggal yi nga xam ne ñoo fi jaar yëpp niñ koy couvrir am na solo trop kon ñoom it ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal mboolem ñi nekk daal ñu leen di ziare ba baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu la ma tawfiqiya illa billah la hawla wala quwata illa billah aliyul azim asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu noo ngi nuyu di ziare ñëpp di leen balu ak di ñaan ci daraje sayidina muhammad alayhi salatu wasalaam daraje sëriñ tuuba mbooleem luñ yendoo def depuis bi bis bi commencé ba léegi suñu borom nangu ko def ko aw yëw ak xewal ak tawféex sahaadatu daarayni la shaqawat baxdaha di sant yàlla bu baax a baax a baax ci biñ góorgóorluwaatee ba gën a jëfe ndigalal ndigalam li nga xam ne si moo ñu ko digal ci alquranul karim muy wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ñu koy ñaan suñu borom te tabaaraka ko taala may ñu kattan bañ gën koo mën a jëfee ndax taxawaayu tey bii kat rafet na lool mboolee mi buntu kër bu aju ci Cheikh Mouhamadul Moustapha di njaboot di cheikh kenn tardé wu ko ñëpp ñëw nañ ci seen yéene ak seen pas-pas ñoo ngi ci sant bu baax di ci sant yàlla waaye di woo mbooleem ku aju ci kër Cheikh Mouhamadul Moustapha moo xam ci njaboot gi la wala ci njaboot gu jigéen gi wala ci cheikh yi commencé ko ci waa kër Serigne Darou Xasan Ndiaye ba ci ki Cheikh Mouhamadul Moustapha mujj a seexal ñoo ngi woo ñëpp ñu nekk ci latin bi moo xam fii ci Argentine ñu fas yéene ñëw ànd ak ñun liggéey bi jëfe ndigalul yàlla yi nga xam ne si suñu borom tabaraka wa taala moo ñu ko digal si naman alayhi salatu salaam leeral ñu ko sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke dikk créé ko xalal ñu ko jàngal ñu ko ba tax lii lépp bu amee dañuy sant bu baax a baax a baax ndax ak ci leen jaar ba tax ñu am mën a am lii te nag buñ fàtte ne sëriñ Cheikh kat ku déggoon sëriñ Touba la mbooleem lim doon def ndigalul sëriñ Touba la ndax moo ak sëriñ Mbacke Madina kat bañ jàngi jee ba ñëw fekk sëriñ tuubaa ca njareem sëriñ bi def lam leen njëkk a nattoo ci seenum njàng mooy sortu Luqmaan la leen doon tariloo te ku ne xam nga ni Luqmaanul Hakim ku ku xereñoon la ci am xel ku yéeme woon la ku yéeme yéeme yéeme yéeme Luqmaanul Hakim waaye nag sëriñ bi tariloo leen saar woowee kon da ngeen xam ne am na lum namoon ci ñoom waaye alhamdulilahi rabbil alamin bañ ko taree tari wa gën a rafet loole ab soñ la ci ñoom moo tax ñoo ngi woo mbooleem taalibe bu nekk fii ci kër sëriñ Touba gi di Argentine ndax mën nañ ko tuddee kër sëriñ pakk yëpp pakki Serigne Touba la ndax wooteeb Serigne Touba ba bàyyiwul woon fenn bàyyiwul woon nit ñu weex ñi du nit ñu ñuul ñi du fenn du jéeri ji du euh, géej gi kon wooteeb Serigne Touba boobee daal la ñuy dollee di feddale di woo mbooleem ku aju ci kër Cheikh Mouhamadul Moustapha moo xam ci seex yi la wala ci njaboot gi jigéen gi la wala foo mën di féetee ci kër Cheikh Mouhamadul Moustapha daal ñoo ngi lay woo ngeen ñëw jàpp ci liggéey bi te xam ne liggéey bi yàlla kese la wasalaamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñuy seetaan lii lañ leen jëlaloon ci ndaje ñi nga xamante ne ni mooy ndaje waa Daaru Xuddoos fii ci màggalug Serigne Modou Moustapha Mbacke kon du ñu def lu dutu ànd ak yéen rek ci programme bi di leen wax ne jërë ngeen jëfati